am na téere boobu may wax ak yow képp ku ko takk ci kàttanu sunu borom soobe yàlla ñu ngi naan ko accam jaru ko soobe yàlla doo dugg kaso bu dee yaa ngi ci biir kaso man maa la appal incha allah rabbi ñaar fukki fan ak benn fu mu la fekk di nga génn waxuma ko pour bëgg nit ñëw woo ma waaye dama lay wax ne yàlla moo ma may ci wàllu kaso. jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum nuyooti nañ leen gërëmati leen sant leen dellu si waat nañ ci daara ji émission bi bu la neexee mën nañ ko tuddee daara ji ndax ay borom xam-xam jaar ci daara ji lañ ci dalal waxoon naa leen ko soxaay bu borom xam-xami borom euh, ñi ne ci daara ji la amal affaire tey nag ñu dalal Cheikh Adji Thiam miin ngeen ko ci écran yi miin ko ci ay wax yu baree bari yoo xam ne jaar na fi miin ko ci lu bare bare bari dinañ ci ñëw ci ay waxtaan tey moom xam naa ni émission bi lu spécial la loo xam ni bëgg naa nga toog déglu ba ci biir di nga xam lan moo tax ma ne émission bi dafa spécial Cheikh Adji Thiam nag mi ngi ci ginnaaw gendarmerie bu Foire boo ñëwee ba foofu boo ko woowee ci numéro yooyu di ak si baaru écran bi euh, da nga mën a jëflante ak moom waaye bala ngaa wootee na ma topp man ak moom nga xam kan laa dalal tey Cheikh Adji Thiam ñu bàyyi la nga nuyoog internet yi nekk ci biir réew mi ak biti réew waaw sony bu baada auzu billahi min sheri sheytan bi nihmati tatimu salihati wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maolana bu maa lay nuyu di la ziar di nuyu képp ku nga xamante ni ñoom nga àndal di nuyu ñi nga xam ne ñoo féetee biir réew ak biti réew di murit tijaan xaadir laayeen ba xataa ñi nga xam ne ñu ngi si jàngo bi di nuyu xalifatul xam mawlaaya cheikh mahamadul mahi ibrahima Niass ñaan yàlla yàggal ko fi lool may ko wér ba moom mottali li nga xamante ni mooy ay yéeneem ci faydu bi di nuyu xalifatul muridiya cheikh muntaxa di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi lool may ko wér ak wér la ndax gis nañ liggéey bu rëy bi nga xamee mu ngi koy liggéey ci euh, dëkk bi du ne biir Touba waaye dama naan ci Sénégal yëpp ndax képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii mhm. yaa ngi gis liggéey bu réy bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey ci biir dëkk bi mhm. kon di jaar di jaar foofu noonu rek di nuyu xalifa xalifa euh, général des Tidianes mhm. sëñ Babacar Sy di ko nuyu di ko nuyu di ko ziar moom tam di ko ñaanal yàlla di ñaanal xalifa yëpp ndax kulim dina juum soñ bu daal di la nuyu beneen yoon ndax wax dëgg yàlla euh, maa ngi lay suivre di kontaan say mbir sa liggéey tamit rafet na lool wax dëgg yàlla jërëjëf bisimilah aywa mi ngi noonu mbopp yi Cheikh yi Thiam la ñu dalal tey wax naa leen ko euh, tey ji la waxtaanu spécial la moom nag am na fu ñu masoon a jaar ak moom ci wàllu vidéo waaye liy wax ni dëgg mooy dëgg tey wax ni sawaay bu ñaari ku mu roofalool rek nga jàpp ni sawaay bi dafay critiquer nit ki gannaaw ba la ñuy xamaat ndax critique la wala moom nag mu am riposte bu am solo bu mu def ginnaaw bi ñu daloon ci kawam ci benn vidéo bu mu defoon daan ci ñëw ci làmb ju mu waxoon bi nga déggee tak sooy bu attaqué la te sooy bu nekk sa soppi boroom siiwu dëgg-dëgg lan nga yëg après lu tax defoo comme say morom def yenn yi waaw sooy bu maa ngi lay gërëm beneen yoon eh. waaw man du ma nit koo xamante ni damay dégg benn mbir rek daal di attaqué borom ndax amaan na tey bu dul dara yar nañ la fañ la war a yaree comme ñu ma yaree fañu war a yaree li ñu wax naan mbiru làmb moom léeg-léeg di ci wax sax erreur la damay wax léeg-léeg sama yenn xale ne leen képp koo leen gisati muy wax ci làmb boo leen ko mën a yërëm yërëm leen ko ndax mën naa daanu ndax man nii ja mujj xeebu ji yàlla may ma si seet loo xamante ni soob yàlla du ma wax doomu aadama yi dañ si wàllu seet ma wax ne leen làmb ji Modou Lo dina daan Balla Gaye te loolu def na 6 mois balaa mu jot làmbu ji ba mu jotee ba mat 4 jours avant làmb ji laa dem waat si di nga xamante ñu ma euh, woon ñëwoon nañ fi du ci mel ni Sans Limite TV du ci mel ni Télévision ñoom ak euh, Sunugal 24 ñëw nañ tàllalaat ma micro ma ne leen maa waxoon ne Modou Lo dina daan Balla Gaye jël bu set wecc bu làmb ji dina jege dina leen wax ne ko la koy daan waaye am na lu ci soppeeku bu Modou Lo deful sarax bi ak sarax bi làmb ji nam ko doon demee dootu demeeti noonu Modou dina ñàkk am na yenn ci jege ñaale Modou yoo xam ne ñëw nañ ba fii sama kër waaye amaan na la ma leen wax ne defee leen ko amaan na xaw nañu euh, doye dal nañu wax ji waaye li ma la mën a wax rek Sénégal mooy dëkk boo xamante ni mm-hmm. amaan na mën nañ ga mën nañuy gaaw wax Euh, wala fësal loo xamante ni amaan na uti naag la borom ba gënoon wax yàlla moo ñu dimbalee sëñ soye bu si li nga xam ne mooy wàllu seet ci euh, ni suñ suñ xam-xam la nekkul loo xam ne suñ doole la wala suñ judd la yàlla mooy jël doomu aadama may ko lu ko neex ndax wa amaa bi ni'mati rabbika fahaddis saa borom bi bu la jaglee ay xewal sant sant ko ci li nga xew nga xam ne xewal yooyu defal na la ko waaye dama lay wax ne daal soye bu yàlla defoon na ñu wax waaye bañ gisaatee loo xamante uti naag loolu ñu daal di génnaar waxaat ko waaye nag Sénégal am na ñoo xamante ni gis nañ vidéo bu mujj bi ndax bu loolu amutoon vidéo bu mujj boobu amutoon man ma fan laa jëmee lii ndax am na ñoo xam ne dañ maa gëm yaakaar ma lool am na ñoo xam ne tey bu ma leen waxee bu leen reer bu leen reer tey duñu reer ñoo xam ne bu ma leen waxee aña bu leen añ tey duñ añ kon sony bu di la wax ne daal métti woon na ndax am na suma yenn jege ñaale yoo xamante ni vidéo bële lañ jël partagé ko ci dëkk partagé ko ci dëkk bi waaye dama lay wax ne wax lu yegg sax saa moo ko moom mhm. ñu waxoon loo xamante ni waroon naag li war a am waaye ba yàlla dimbali ñu si mhm. mbaaxam ñu gisaat leneen ñu daal di génn wax ko jaami fekk na nag boobu amaan na bi jàll jàllale nga ko ña ko war a gis gis ko ña ko war a interpréter interpréter ko comme sa site bi site bu mag la ñu gisee ko nu ne waaye loolu du benn problème terewul boobu léegi ñi nga xamante ni woo nañ doon critiquer sax demaan naa si yeneen télé bu ci mel ni 2STV confrontation ñu invité ma fa ma wax fa ak kanam bisu li nga xamante ni moo am jaamu yàlla yi teew tey lañ ma gën a gëm tey lañ gën a nangu ndax kii nii ku ko xam xam fa mu dëkk ñëw jaxasoog ma rek di nga xam ne dëgg-dëgg kii ni amul daray caaxaan wala mboosoor loo xam ne mi ngi si ñun loolu ñu ngi ci sant suñu borom bu baax a baax ala kulli yàlla mi ngi doon bokk yi kon muy lu am solo loo xam ne ginnaaw bi soo ay bu defee vidéo ci loolu euh, ñu wan ma ni am na deuxième vidéo bu mu defoon boo xam ni tudd na si yi nga xam ne ñoom la woo ni leen kaay leen ngeen euh, jël li nga xam ne mooy li ma nar a wax mooy euh, su Modou Lo deful lii ak lii kat dana kon loolu mu bokk ci liggéey bi nga xam ni ñoom dañ koy def muy ay fakkastalu waaye nag ndokk moom it ba mu defee deuxième vidéo boo xam ni mën na layal waxam joojule dañu dugg kon ci wàllu seet boros nga ko sax yow ban façon seet ngay def ndax da ngay listixaar ci wàllu kurus da ngay fanaanoo euh, da ngay tëni wala looy def waa sone bu xam nga sëriñ moom ak seet nan dama la wax ne kiñ na sëriñ la te mënut seet mënut def listixaar kooku war nañu xool ndax sëriñ la wala du sëriñ ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne dee leen di seet seen mbir balaa di ci dugg soin bu baax na balaa ngaa dugg ci jigéen soxna la nanga ko seet balaa ngaa jënd oto na nga ko seet balaa ngaa tukki na nga seet yoon wi balaa nga bërëb boo xam ne war nga faa liggéey sax wala kër goo war a sanc war nga koo xool ak bis ba di xool ba xool bis ba nga xamante ni moom nga ko war a def waaye nag toll nañ si jamono joo xam ne ngay gis jigéen rek neex na ma rek naa ko naa ci dugg doo ko seet ëllëg nga dem gis gàllankoor feeñ ci wala nga jënd oto doo ko seet maanaam pour wax daal seet moom bu mu ci mën di doon li nga xam ne mooy listixaar comme ni ñu ko bëggee listixaar nag Euh, boo koy dégg guddi gi moo tax ñuy def ñuy wax fanaanoo li nga xam ne mooy say mbir waaye nit ñi dañ koy jaawloo da ngay gis léegi ku bëgg euh, ku ko seetal mu ne mu ne la listixaaral ma waaye seet jooni jooni foo mën di nekk moo xam nga ñëw toog suñu ron moo xam nga nekk bitim réew moo xam foo mën di nekk nga yëkkat sa téléphone wooñu bu la neexee sax bul coupé mën nañ laa seetal léegi bu fekkee ne si kàttan suñu borom waaye dama la wax ne mën nañ laa waxit ne la woote waatal fii ak 10 euh, minutes fii ñu xoolal la ndax day fekk ñu xat te lépp duñ ko mën a def ci ci daar daar pour wax la daal seet dañ koy def lu ci mel ni ramle yàlla dimbale nañu si lool lu ci mel ni li nga xamante ni mooy seet ci kurus gi yàlla dimbale nañu si atta ba ci kaamel bi sax sañ soy bu dama lay wax ne dañ ci seet mu doon loo xamante ay tawfeex yu ñu sunu borom bi defal waaye pour wax la daal seet mbiru sunu borom la ñëpp nag ku nekk ngi woote ne mën naa seet mën naa seet waaye nag dama la wax ne nit baax na daal lépp loo mën di dugg baax na nga xool ko baax na nga gëstu say mbir baax na nga xam fi nga jëm fan la atta ba ci bis ba sax bis bi nga ko war a def da nga ko war a xam mhm. son yi daal yàlla dimbale nañu si wàllu seet ñu ngi ko si sant bu baax a baax am na solo euh, Cheikh Adji Thiam ñu àndal tey mi ngi fii ci ginnaaw gendarmerie bu euh, foire bi wax na ko léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lu ngeen di dugg lu nekk na ngeen seet na ngeen ko listixaara léegi nag man saay bu mi dugg ci as soxna wala ma dugg ci kër wala oto wala ni mu lu mu mën a doon mhm. ba ca biir ma seet ni kat am na lënt lënt bu ci ne jaxas jaxas bu ci ne mhm. ndax Cheikh Adji Thiam su kooku ñëwee seet si ko am na loo ci mën a def muy ay defaraat. waaw dama lay wax na la nit koo xamante ni ñëw na bëgg dara xam nga doomu aadama ñaare lu mu bëgg rek day bëgg a jot si man bëgguma nit ko nit ñëwal ma ku bañ defet bëgg nga dara nekk nga ak jigéen wala soxla nga jigéen bi itteewoon na la nga ne xaaral ma def ci seet nga def seet mu doon loo xamante ni baax na ala kulli kooku demal baax na mu doon koo xamante ni amaan na am na gàllankoor yu ci nekk gàllankoor yooyu noonu mën nga koo fanq fanq nag si wàllu ñaan yàlla la ndax ñun ay jullit lañ adduwaaw silaawul mumin ñaan mooy ngaan ay jullit kon baax na gàllankoor yi ci nekk nga ñëw ñu daal di jaar bunt bi nga xam ne lañ war a jaar pour fànq gàllankoor yooyu ñu def ko waaye soye bu dama lay wax ne la nit ki lépp loo xamante ni tey yaa ngi mu ngi nekk sa kanam ñun ñaan yàlla lañ am am na koo xamante ni tey soxlaan bi lii la donte que ne doon na loo xamante ni jafe na waaye dara jafewut sunu borom kon looloo indi ñaan yàlla ñun jullit lañ saa borom bi moo wax si alxuraan ne udooni astajib lakum ñaan leen ma ma leen ndéem ñaan leen ma ma may leen moom li mu yor lay may yow li nga soxla li nga yor do amoo soxla di si ñaan kon soxla bi bul ne ndax lii mën naa ne dem naa fu ne dem naa fu ne dem naa fu ne wallaay demoo fu ne jàmm jàmm jëmm ju xeebu ji sumay bu damay faral di wax ne képp koo xam ne am na aajo bu narul faju yàlla bu mu yegg si wallaay lisi laay laaw damay ñaan loolu yàlla saa su nekk ndax yaakaar dafa foor am na koo xamante ni nee na dem na fu ne comme ni ma ko waxee soob yàlla damay wax ne bu dee aajo jooju sumay bu narul faju wallaay yàlla na bul fëgg sama buntu yàlla bul yegg si incha allah am na solo aywa mi ngi noonu si aju caam la ñu àndal muy lu am am solo ndax nag dafa mat di ñaan muy ku aajum na ta faju yàlla bu mu yegg si ci man euh, wax naa ko léegi-léegi muy borom xam-xam boo xam ne ku dégg waxam da nga dégg ci biir euh, xam-xam euh, Cheikh Aji bala ñoo dugg nag itamit ci wàllu ñaan ñaan ñaan yàlla dëgg ak ak yeneen yi ci des ay bay rek fegook yooyu hmm. lis kii coronavirus bi hmm. bi mu duggee Sénégal itamit doon naa la seetaan sa ay vidéo yooyu ci doon wax corona bi ba léegi daanaka dem nañ maa ngi dégg ay 29 cas yooyu ban kii nga ñu mën a defal ci koronaa beeg ak ndax kañ la fiy jógee. waaw kañ la fi jógee moom loolu euh, balaa mbas mu fi saa borom wàccee la. Mhm. yàlla mi ñuy dimbale ba jamono ñu ngi wax ay 29 cas comme ni nga ko waxee ak yooyu noonu. Mhm. waaye dama lay wax ne la soobee yàlla bu dee ñaan. Mhm. ñu ngi ñaan. te kër yëpp a ngi ñaan. ba ci atta ba si jàngo bi ñëpp a ngi ñaan. ñi nga xam ne ni gëmuñ dara sax ñu ngi ñaan ndax lii musiba bu fi saa borom bi wàccee la àdduna bi yëpp séddoo ko soobee yàlla saa bi mu ko moo ko indi te ba mu ko indi tàggut kenn incha allahu rabi bu ko yóbbu du ko du tàggu kenn day toog toog rek mu daal di dem nekkut loo xamante ni doomu aadama mooy tax mooy toog ne bi sàngam lay corona bi fi jógee bu leen nangu kenn di ñu appal loolu am na ñu fi génnoon ci télé ay kilifa naan soobee yàlla màggal gi di ñëw dina fekk corona bi jeex loolu wax jooju si kilifa maanaam léeg-léeg day indi njumte day indi xeebeel waaye dama lay wax ne daal somme bu baax na ñu xamal jaamu yàlla ne balaa bu fi saa borom wàccee la incha allahu rabi dina ko fi jëlee te bépp balaa bu fi saa bi wàccee soob yàlla ñaan yàlla ak def li nga xamante ni mooy dellu si yàlla di def ay istixfaar di jéggalu sunu borom moom mooy li nga xam ne mooy faar li nga xamante ni mooy balaa yooyu mhm. soob yàlla corona bi saa borom indiwoon na ko fi mu ngi demee ndànk te maa ngi ñaan yàlla yan ñu gën a demee yaara bi incha allah te boo seetloo Sénégal dafa mel dëkk bu am ñaan la nag ndax ni corona bi ravagé yeneen réew pays mhm. ak réewu tubaab yi boo mhm. xoolee Sénégal nag wax dëgg yàlla nañ sant yàlla nag sëy loolu moo waral boo fàttalikoo yaa ngi wax vidéo boobu noonu ba màggal gi di jub si jublu si daaw am na tele bu fi ñëw taaloo micro ma ne leen bu ñëpp bu fekkee ñun ñëpp dañoo war a dem corona ji dee si ajjana euh, dee Touba ndax sëñ Touba rek mooy jëmi ajjana man maa wax loolu te tey laa gën a mën a wax loolu sëñ Touba rek mooy jëmi ajjana waaye dama lay wax ne la ñu am na ñu ko déggee nu leen neexee ma am si ñoo xamante kontaan nañ ci waaye am na ñeneen ñu ko déggee neneen waaye loolu su ma waxee loolu sëñ ay mayam romb na loolu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 lii sénégalais yi partagé woon nañ ko fu nekk mu tasaaroo ci réseaux sociaux yi mhm. nga ni bi ñu ko defee am nañu ci meroon xanaa ñooñu ñoom dañoo dëkkul ci réew mi waaw dañoo déggoowut xam naa ne dañoo déggul wax ci mhm. dañoo déggul wax ji waaye dama lay wax ne euh, Baay Ñas radiyallaahu anhu si téeréem bu njëkk di ruul adab sa njeextal ga mu ngi tagg ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul mhm. maanaam ne ko xaadimu taha am jënti waxun mi naa nu yonent bu tedd bi de gën a tedd ki la bàyyi moo njëkk wax loolu pour kon pour wax la rek ne mbaax gi nga xamante ni wala cër-cër law gi nga xamante ni joxante woon nañ ko seen biir bàyyi radiyallahu anhu euh, dem na ba Makka ziar yonent bi mu ne am lu ko dikkal ne ko ci kaw suuf gisuma ku gën ku la gën a bëgg yonent bi yow xaadimu rasul loolu bàyyi moo ko wax mu ngi ci bind yi kon nit ñi euh, doon doon loo xamante ni nañ xam ne daal nañ ko jëlee ne sëñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg dëgg ndéem iblis moo mën a dugal nit safara sëñ Touba mi nga xam ne mi ngi topp yoonu siraatikal mustaqim mi ngi topp sunna si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi topp yoon wi nga xam ne mooy yoonu yoon yi li nga xam ne mooy dimbali dimbali nit ñi kon kooku bu dul jëmi ajana luy jëmi ajana ala kulli lii rek lañ si jubloon ci wax mbaaxu sëñ Touba mm-hmm. waaye teewut sañ ñun euh, yàlla dafa dogal Baay Ñas mooy sama sëriñ mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. bërki de moo Ndiaye gis nga délégation bi nga xamante ni moom la Cheikh Mahamadou Maay yónnee yónnee fële yónnee Touba ñu dem seeti ji xalif général des Mourides sëñ Muntaxa mu doon loo xamee lu rëy la àdduna bi yëpp rafetlu nañ ko Sénégal benn lañ kilifa yi benn lañ waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci diggante yi ñooy jéem a uut ay sewnde yi ñu jaar pour mën a yàq amaan na sax du ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir waaye réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen ginnaaw télé seen biir néeg la ñuy toog di saaga tey boo génnoon ñu ngi saaga boo génnee ñu ngi wax wax ju ñaaw Sénégal am na leneen lu fi xaj lu dul loolu mhm. wax dëgg yàlla donul loo xam ne lu rafet la di wax ne daal sëñ Touba ñaan yàlla taa ñu ci ay leeram rek lañ mën a wax alaa yàlla macha allah am na solo Cheikh Adji Thiam muy témoignage bu rafet boo xam ne wax dëgg yàlla lii la ñu euh, séenu ci doomu daara jëf ci loolu le defe naa ne ñu la ci mere woon yëpp war nañ kon déglu sa wax ji nga wax te euh, bàyyi ci xel léegi nag euh, li nga xam ne moom la Sénégal yi baree bare rawatina yi ne ci entreprise yi bëgg moom la borom alal yi bëgg tey kuy borom alal tiit nga rawatina borom alal yi nga xam ne nag dañu bay ay macha allah ñu leen wër nga xam ni jàpp nañu ñi leen wër sax mën nañ leen fexeel léegi nag kaaraange googu nga xam ni ku nekk soxla na ko Cheikh Adji ndax da nga am loo mën a baaxee Sénégal soin bu dama lay wax ne si kàttanu sunu borom lépp loo xam ne maa ngi koy liggéeyal doomu aadama mucc moo ma ci moo ma ci gën a ñor ndax damay faral di wax ne ku mucc mos waaw ku mucc mos ku mucc rek mos li ñuy rëj rëjloo si àdduna bi yëpp pour ut li ñu am mhm. moo xam entreprise nga yor mhm. balaa entreprise bi di taxaw fekk mucc nga mhm. yàlla mën na laa dimbale ba dara du la lor dañuy toll si jamono joo xam ne ku bëriwul nit ñi bëri daanu sa kaw am na koo xam ne mu ngi naan ax ah, jaru ko waaye dama la wax ne amaan na gàllankoor moo yegg si bu gàllan gàllankoor yegg seere nga xeb sa bopp dama la wax ne picc bu gën a ndaw doon ab picc euh, góom bu la laalee rek doomu aadama nga xam ne doomu aadama dara xajut dama lay wax ne nañ leen fexe ñaan yàlla mucc buntu mucc yi nag son son bu bari na lool lool lool am na garab goo xamante ni ñu ko naan xay juróom-ñaari xay yoo xamante ni bokkuñ fañ ne dañ séenante maanaam tey nga jëlee xay Dakar suba Kaolack Passy Sokone ba am juróom-ñaari dëkk xay yooyu nga boole leen def leen sunguf ci kàttan sunu borom am na li ñu koy liggéeyee soobee sunu borom képp koo xamante ni fas yéene na liggéey du ko nettali sooy bu am na am na euh, kaaraange goo xam ne ñu ngi koy liggéey ci li nga xam ne mooy suufu géej saafara bi suuf bi ngay jël saaf ko boole kook saafara bi sangoo ko dama lay wax ne boo ko sangoo benn yoon képp koo xamee liggéey na la maa la may ñetti fan wallaahi lasi laay laaw ku la liggéey di nga di yëg feebaram euh, ci kàttan sunu borom te boo ko seeti jiwul du jóg mu doon ay kaaraange am na kaaraange boo xamante ni soobe yàlla ñu ngi koy liggéey ci deru li nga xam ne mooy mbaam kaaraange ci wàllu kaso kaaraange ci li nga xamante ni mooy wàllu accident accident yi bëri na kaaraange ci li nga xamante ni mooy jafe jamono am na téere boobu may wax ak képp ku ko takk ci kàttanu sunu borom soobe yàlla ñu ngi naan ko accam jaru ko soobe yàlla doo dugg kaso bu dee yaa ngi ci biir kaso man maa la appal incha allah rabbi ñaar fukki fan ak benn fu mu la fekk di nga génn waxuma ko pour bëgg nit ñëw woo ma waaye dama lay wax ne yàlla moo ma may ci wàllu kaso wallahi lesi laa ilaa woon ñu ko naan accam jaru ko ki dugagut ak ki dugg ba pare dama lay wax ne téere bi ñu ngi koy defare deru mbaam mhm. mos ngeen di dégg nenu ginaar tëj dugal na nit kaso ginaar nenu nenu ginaar dugal na nit kaso ginaar dugal na nit kaso bëy xar fas gëlëm lépp dugg na nit dugg na ci kaso waaye mbaam sàcc naa mbaam yóbbu nañ ma kaso kenn su koo dégg deru mbaam bi la ñuy jël boole kook loolu soobee yàlla borom aw ko takk wallaahi lazi laa ilaa koo ko defal ci kaso incha allahu rabi dana génn dem na ba ci yeneen mucc yoo xamante ni soobe yàlla lu ci mel ni ndombo am na ndombo yoo xam ne ku ko takk soobee yàlla waxuma ko pour encourager kenn muy def lu bon képp ku ko takk soob yàlla bu fekkee ne am na loo xam ne yaa ngi ko téye li ñuy tere soob yàlla di nga mucc moo xam ci biir réew biir réew biti réew moo xam nga yor loo xamante ni soob yàlla yoon war na ci mën a teg loxo moo xam nga nekk ci gàllankoor soob yàlla di nga mucc incha allah ala kulli dama lay wax ne la wàllu mucc liñ ci yor géeju na géeju goo xamante ni nit ñi nag ku nekk a ngi naan sama ndomba gi sama ndomba gi da ngay dem ba dootoo sawarati wax li nga xamante ni mooy wàllu gàllaaj yi nga xamante ni yor ko te du ma tudd ah, dama lay wax ne accam jaru ko amul beneen sëriñ bu sañ a wax fii Sénégal ne daf koy liggéey deru mbaam kuru Cheikh Adji Thiam bu dee ne nit ki mi ngi ci biir mi ngi biir kaso soob yàlla nee naa la ñaar fukki fan ak benn laa ko may àpp lu métti métti dina génn ci biti attaa atteguñ ko sëñ bi yàlla mooy may doomu aadama lu ko neex am na loo xamante ni soob yàlla fexeel ba boroom jël ko nga war a dem jàkkaarloog nitu yoon wala nga dem jàkk wala nga nekk ci biir yoon jëlal rek nga daale ko laal sa làmmañ laal sa jë sëñ bi bu fekkee na nga waroon jàkkaarloog ndaw buur wallaay lazi laa ilaa wa bu la attee soobee yàlla du ko nettali waaw waa la waaw sëñ bi loolu li naa ci porox léegi man doon naa ko wax sama benn collègue hmm. ma ne ko dafa am atte bu ma seetaanoon ñu atte booy bi ni ko yaa sàcc mu ni waaw yaa jël mu ni waaw hmm. ba ñëpp diglu ko tribunal bi waa ji ni ko demal nga ñibbi man lu ma jaaxal ba nii kenn mësu koo gis sëñ bi dama lay wax ne la ñibbi la ko wax dama lay wax ne la waxuma lu lu dul ñibbi sax mën na koo def am na ñaan yàlla ci wàllu kaso am na ñu ci mën lu bëree bëri xam naa si ñu bëree bëri ñoo xam ne yàlla may na leen ci wàllu kaso waaye dama lay wax ne la li ma yàlla may ci wàllu kaso muy sunguf boo xam ne jël ko nga laal ko wala muy li nga xam ne mooy téere bi cool yi fu mu dem dem dem dem dafay fa lay yem mm-hmm. waaw tekkiwut ne damay digal kenn muy def lu bon mm-hmm. waaye ku nekk ci gàllankoor soxla na ku ko dimbale macha allah li moo ci nekk sëñ Chouaib am na solo sëriñ bi waxtaan yu neex ba dafa mel ni eh, daanaka yegg si nañu léegi ci eh, lan nga bëgg a leeral ci li nga xam ne mooy wàllu bayre nag ak yeneen yi ni mel parce que dafa mel ni faaw nu amaat beneen jataay ndax waxtu wa kii ne te laalaguma sax actualité waaw wàllu bayre dama lay wax ne képp ku wax bayre wax ubbeeku maanaam nit ku ne booy bëgg nit ñi ñëwal la yaa ngi bëgg loo am wax naa léegi mucc boo muccee mos bayre moom li ñu ci yor bari na lool waaye moytul am bayreeb kaña foo romb ñu ne kaña gaa ngi kaña gaa ngi soo moytulee di nga gàtt fan waaye wàllu ubbeeku ma bërëx ton bërëx tollu tuuti rek wax la ne lenn si wàllu ubbeeku sañ sony bu am na loo xamante ni dañ koy jox doom aadama mu sangoo ko képp ku ko sangoo ci kàttan sunu borom doo toog juróom-ñeenti fan yoo xamante ni déggoo tawfeex am na koo xamee dina ñëw ne la dama bëgg sëñ bi dama sonn sama yaay sama baay dama bëgg ku ma dimbale ma tekki dimbale leen dama lay wax ne am na buntu boo xam ne boo ñëwee ñetti fan wallaahi lazi laa ilaaha di nga gis buntu di gis mbir képp koo xamante ni soxla na lu mel noonu wallaahi si tele laay waxee ñetti fan di nga gis tawféex mu doon ay buntu ubbeeku yoo xamante yàlla moo ñu ci defal ay mbir xam naa day nekk bayre bi ngay faral di laa ndax sëñ bi li ma jaaxal yombul sëriñ di def ay émission ñuy dagg vidéo yow nag vidéo boo def gaa yi dagg ko di xam naa nag yooyu moom moom euh, waaw ñun moom soxla nañ ko léegi sëñ bi wàllum mbirum góor jigéen xam naa ci ñaari minute euh, ñu tënk ci dégg nga coowal góor jigéen ci réew mi nee nañu dañ ko bëgg a voté assemblée nationale am na ñu wax ni sax état bu Sénégal jot na ba pare ñoo ñàkk a daganal mbir mi. Euh, Soyeb dama lay wax ne dafa am loo xamante ni gis nga góor jigéen ñi li am am am doole daan lislaam lislaam ma leen fii jiitu ma leen ëpp doole. dama wax leen ne Sénégal nañ leen def benn say comme ni fas yéeneen defee ko nii sëñ Mountakha signé na dégg naa. sëñ Maay Ñas eh, mii nii signé na mhm. sëñ Babacar Si signé na mhm. tey lii lañ xaar lii lañ soxla Sénégal mhm. ñu toogandoor benn mbir am jëm ci diine ñun ñëpp ñu jógandoor tey biñ jógandoor dama lay wax ne li nekk ci diine eh, diine l'islam li ci nekk ci doomu aadama ci àdduna bi ñu ëpp fukki junne yoon li nga xamante ni moo nekk lu dul julit tey dañoo ñakk def say biñ defoon benn say soobu yàlla lépp luñ song mën nañ koo daan waaye dama lay wax ne mbiru góor jigéen bii nii Sénégal lay am du assemblée bii lañ koy voté donc diini l'islam soobee yàlla heure bu heure boo déggee ñu ne la maa wax lii ci télé heure boo déggee ñu ne la voté nañ ko assemblée nationale mooy soobee yàlla bis boobu nañ leen xaar Sénégal soobee yàlla musiba bu rëy rëy rëy dina fi am. te du fi am président bi mu fi fekk amul sens. bu fekk amul sens. te dama lay wax ne sooy dama lay wax ne loo xam ne Sénégal jullit Sénégal yëpp ànd nañ ci euh, ne waaw. Mhm. dama ne président Macky Sall warutoon a xaar ñu ne dañ koy voté assemblée nationale. warutoon a xaar lii wala lële. du loo xam ne suñu diine la du loo xamee du du jullit ñi du catholique yi mm-hmm. amul benn diine boo xamante ànd naa góor jigéen kenn rafetlu ko ñu bëgg a toog naan nañ ko voté nañ ko voté mm-hmm. wax jooju du waxi dara dama lay wax ne la nañ jóg ku ci nekk doomu daara ku dul doomu daara ceem mm-hmm. dama lay wax ne góor ak jigéen lan mooy góor ak jigéen góor jigéen luy góor jigéen doo toog mukk dégg ñu ne la xaj ak xaj xaj bu góor ak xaj bu góor a ngi sëy fas bu góor ak fas bu góor a ngi sëy fas bu jigéen ak fas bu jigéen a ngi sëy ñu bëgg a jël góor ak góor di sëy ma ne ñi koy def ay doof lañ lii la alxuraan xam mhm. ba tax mu euh, euh, rëbbu leen dama lay wax ne la mhm. yàlla dul yàlla rëbbu na leen mhm. ba ba pencam yàlla yàlla fii rëbbu na leen fi te ñu demee fële rëbbu na leen fi amul benn armeer boo xamee di fa dem ci Sénégal nga toog ñu ne la góor jigéen bi fii lañ ko suul xanaa dañ ko biñ koy suul la ñuy nëbbatu waa koo xamante ni biñ lay suul la ñuy nëbbatu wala ñu dem ba ci armeer boo xamante ni kenn xamula fa nga daali daw ndànk suul dama lay wax ne loolu am na lu ci rax kon nañ war nañu xam ne li ñu nekkee baaxut nañ ko baax ay mi ngi noonu kon ñu mujjee rek ci euh, lu doy waar loo xam ni ñu ngi jaale Sénégal mboolem ñi ñu ñàkk ci euh, weer yi ñu génn ñëpp rek mhm. euh, waaye sëriñ bi ñu gis barki démb ci accident bu métti bu am ci cortège président Sall lu mhm. jëm ci suñu mbokki waa leeral point net yooyu mhm. seen ay journalistes am ñu ñàkk bakkan am ñoo xam ni dañ ci am ay gaañu gaañu ñu gis ci réseaux sociaux yi nga tudd léegi daal mhm. euh, li ci nekk lu ñaaw la mu mel ni am na ñuy bëgg ci gaañu boobu sëñ bi bi nga commencé gis loolu di am ci réew mi tiitoo wala nga am ci jàngat waaw euh, tiit dafa jot dëkk bi ba tiit jotee dafa yàgg parce que man ba ma commencé tiit maa ngi tollu Gàmbi doon def ay fay coow si histoire Sonko ak ndaw soosu gën a gi saara def naa si ay fay coow yu rëy wallahi lisi laa ilaaw mu ngi ma fekk Gàmbi mhm. yàlla mu dara tawul lii nii am nii tey ñii accidenté man am na koo xam ne ma dégg ci télé muy wax ne euh, àqu Sonko moo leen dal wax jooju ñaaw na si dëkk bu mel ni Sénégal ñii génn nañ àdduna mu ñuy des lu dul ñaana leen yàlla yàlla yëggal leen si barzaqu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo dee ci seen liggéey di wax ne senegaal wax ju ñaaw xaju fi jëf ju ñaaw xaju fi mm-hmm. dëkk boo xamante ni rëyu rëy gu tool noonu bokk nañ ci réew yu gën a ndaw ci àdduna bi ak lu ñu am ci teraanga yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp duñu xool loolu waxuma teraanga ci alal waaye teraanga ci mbaax ci diine teraanga ci mbaax ci juddu ci dignité dëkk bu am di Sidi Aji Malick Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Omar Foutiyou Maalaay Abdoulaye Niass Baye Niass Maam Limaamu Laay mii si Yoff demeet nga di ko wax ba mu jeex sookoon kooku am na leneen loo xam ne xaj na fa lu dul di ŋàññi sa moromu jullit ñii yàlla mooy rey Sonko mënul rey Macky Sall mënul mënul rey yàlla moo dikk te nañ nangoo ne yàlla moo dikk ñaan yàlla mi nga xam ne moo am njégal mu njëgal leen incha allah. incha allah Cheikh jeexal nañu wala xaabaabal nañu sax looy tàggoo xam naa beneen yoon waaw di la nuyu beneen di la nuyu tamit wax dëgg yàlla. di nuyu équipe bi nga àndal. Mm-hmm. di wax ne yàgg naa leen di suivre tey ba ngeen ñëwee seet si ma moo tax mu def mbégte ci man lool. wax dëgg yàlla di ñaan yàlla yàlla def fi jàmm. yan na yàlla def jàmm suñu réew mi. yàlla moo mën moo mën jàmm moo am jàmm. yàlla nañu mënee jàmm yàlla ñu amal jàmm bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp koo xam ne ñu ngi seetaan euh, son bi jërëjëf jërëjëf Cheikh Adji Thiam am na solo waxtaan wi neex na ba ñu xaabaabal sax te yëguñu ko vraiment muy nit ku yiw ku nit ku sell euh, nit koo xam ne daal ñun bi ñu koy dégg euh, xëy na liñ naan li gën a bon ci àddina mooy nga dégg bëgg gis jéppi waaye ñun bi ñu koy dégg di ko gis ci ecran yi dañ ko doon euh, xemmeem waaye bi ñu ko gisee nag gën nañ koo bëgg parce que leeru alxuraan la ñu gis ci moom leeru donga daara la ñu gis ci moom bi ñëwee ci kër gépp mbirum donga daara lañ fi fekk ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu euh, Cheikh Mahi Niass mi nga xam ne mooy xalifa général bu euh, Baye vraiment di nit ku baax koo xam ne laata muy nekk xalifa dañ doon dégg ay actes yu baax yu mu doon def jëf yu baax yu mu doon def ñun jikko bi mu yore la ñu yore man xaw ma murit xaw ma tijaan xaw ma laayeen xaw ma xaajir xaw ma keneen man jullit laa xam rawatina nag mag ñi ni ñu nekkee benn te moom wax na ko ci xasida goo xam ne eh, Sidi Hadj wala bokk eh, Barham Niass daal dina ci ndokkeel daal ci tudd ay baax baax yi Sëñ Tuubaa Seexul Xadiim kon mbokki lii mooy Sénégal wax na ko ci biir lii la ñu bokk te ñu koo seddoo jox leen dig daje ay numéro mi ngi doon di affiché ci barre écran bi mi ngi fii ci eh, ginnaaw gendarmerie bu Foire bu ngeen fa ñëwee di ngeen jokkoo ak moom incha allah asalaamaaleykum